asalaamaaleykum wa rahmatullah ami internetu Dakar Buzz TV nuyu nañ leen bu baax a baax di amaat mbégte lool jonowaat ak yéen tey nag ñu ngi fi fas yéene dalal suñu gan di oustaz Nouhine euh, ñenn ñi gën ko xam si l' avocat ñi xamee ko si borom gaal gi xam naa dañ koy bàyyi rek mu nuyoo oustaz nuyu nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. Mhm. di nuyu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan. di la wax ne rek juumoo tur yooyu boo ma ci wootee woowee rek <laughs> macha allah dafay nekk tur bu dëppoo ak ñun di xaar incha allah say question pour ñu mën ci tontu incha allah. d'accord léegi est-ce que mën nañ xam l'avocat des femmes bi fan la jógee. waaw Amina l'avocat des femmes. Mm-hmm. simple na pour ñu lii ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne avocat wu femme yi la woon. Mm-hmm. te en tant que ñoo xamante ne dañu xam ñu ràññeeku ci diine. mais duñu ay borom xam-xam sax mais dañu te dañuy wax ne al ulama warasatul anbiya mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo am tuuti xam-xam wala ñuy ay borom xam-xam yu mag mm-hmm. ñoom ñoo représenté yonent yi loolu foofu rek la jógee. <laughs> d'accord macha allah léegi borom gaal gi nag yaa moom gaal yi nekk fii wala histoire bi lan la. borom gaal gi gaal gi moom dèjà rëbbi na ñëw na andi na coupe. waaw <laughs> mais borom gaal gi du dara tuddeewu ma ko sama bopp parce que yonent yàlla noox mooy le prophète Noa. waaw moom lañ ma tuddee te ku ne xam na ne moom yàlla daf ko santoon moo defar gaal. Mhm. Euh, pour peuple am bi loolu moo indi turu borom gaal. allah coupe bi. Mhm. ni ni mu duggee ci réew mi ban jàngat nga ci am. waa jàngat bi ñu ci am ci coupe bi nga xamante ne Sénégal jël na ko. Mhm. Euh, ñoo ngi félicité sénégalais yépp. Mhm. Euh, li ko dale ci njiitu réew bi ba ci ki gën a tuuti. waaye li ñu ciy jàngate rek mooy àddina lépp lu waaye di yootu te découragé woo. di nga ci jot loolu yonent bi moo wax ne lu waaye di ñaan te yàkkamti woo di nga ci jot. aussi loo gis ci àddina aussi dafa am àpp bu àpp ba jotee rek du xaar dara moo xam dund la moo xam dee la moo xam wërsëg la moo tax jërul ngay daw di uti dara lépp looy wut te am patience yàlla suñu borom dina ko indi ba agsi ci yow beneen bi ci des mooy képp koo xam ne da nga ay nit pour ñuy ut dara en tant que ku mel ne ku mel ne tey ku ne xam na ne euh, lu ne nit yi wax nañ ko ko mais mu muñ rek bu woon ngir nit ñi wax yi ñuy wax kon du am li mu am tey moo tax ñu ne boo yéeg ci kaw ku la saaga da nga koy bàyyi yow nga continuer sa yéeg parce que boo bëggee yéeg ci kaw ku la saaga nga tontu ko dangay ngay sonn mais doo mës a àgg ci kaw beneen bi jàngat bi ma ci am mooy euh, yàlla suñu borom def na ñu bëree bari tey football yittee lu wal leen benn ci man football yittee lu ma woon waaye tey mhm. yenn ci ay kilifa wala ay ñu tuddee ay marabu wala ñu xam ne ay njabarkat lañ mhm. bi ñu waxee tëkku équipe nationale rek ñun suñuy xol dafa yeewu pour ñu ñëw soutenir leen jàppal leen ci lu ñu man ci ñaan ci sarax ak leneen ak leneen. kon mhm. léeg-léeg suñu borom bu bëggee dimbali nit ki da koy jaaree ci làmmiñu noonam moo yi wax ne ida arada llahu nasra fadilatin tuwiyat ataaha laha lisaana xasudin léegi nit dana génn wax wax bu ñaaw jëmee ko ci nit fekk daf ko bëgg a dimbali tey am na euh, tey am na ñoo nga xamante ne bu ñu génnuloon wax ne équipe nationale du mas a jël coupe am na ñoo xam ne duñ ci tey lañ doon yàq ñoom yàqoon nañ ci te liñ doon yàq yàquwul loolu tamit jàngat bu yaatu la ci. lan nga yaakaar ni moo waral ba ñenn nit ñi génn naan coupe bi du ñëw am sax ñu ne duñ dem demi-finale waaw loolu li ko war a leen rek la mhm. mooy xubbu suhrati lépp dafay dellu ci bëgg àddina yonent bi nag dane woon bëgg àddina mooy bépp musiba mhm. la ko féet la ca féete kaw mooy bopp bi mooy bëgg àddina mooy fitna bi maanaam fitna boo gis ci àddina rek mhm. la koy indi mooy bëgg àddina bari na ñoo xam ne dugg safara gi leen leen duggal safara mooy bëgg àddina am na ñoo xam ne leen indil fitna mooy dugg àdd bëgg àddina kon ñoom ñi doon wax loolu tey danga ñu dugg ci ñi alquran di wax ne daa xat alayhimul ardu bi maa raxuba tey fu ñu waxee te kenn du leen déglu hmm. par exemple gis nga ñi ci waxoon ñëpp tey foo gisati seen vidéo ci internet bi ku ñëw lu muy wax fenkat bi wala nangam bi jaar ci lu gën a ñaaw a ñaaw kon yooyu lu mat a bàyyi xel la lépp looy wax nga di ko bàyyi xel kon bëgg a siiw la woon rek waaye ñoom xamuñu ci liy xew suba dara liy xew suba comme ni ma ko waxee yàlla rek moo ko xam léegoo léeg nag la koy waral mooy dañuy bëgg bës ndax parce que loolu ñu wax tey bu Sénégal toogoon tey rek am na ñoo xam ne dinañ am dañ leen yëkkati lu bëree bëree bëri ñaareel ba mooy mm. sénégalais li may waxee toujours yaa ngi gisal ma koy wax sama TikTok sénégal dafa bëgg koy fen maanaam boo dee wax dëgg sérieux nii sax nit ñi duñ la déglu maanaam nit ñi dañoo bëgg ku leen di fen mm-hmm. parce que ñooñu noonu ak li ñuy mën a fen mën a fen boo xoolee seen vidéo yi mooy ëpp ay j'aime que a la ñuy gën a privilégié euh, ñaaw la ñuy gën a lu baax looloo tax mais ñu koy def ñëpp li ñuy bëgg mooy lu dem ci seen poste lañ cey bëgg ndax da nga gis ku ci wax toujours rek danaan fédération bu ñu ñëwoon ci man wala président de la République bu ñu ñëwoon ci man wala nañu def sarax sàngam au lieu que kay en tant que citoyen sénégalais kay boo xoolee loo xam ne dafay jëmale sa réew gannaaw wala lu fay indi jàmm boo demee ba yow boo ko xoolee ba gis ko mënoo ci génnee sarax loolu nga téye sa làmmiñ moom moo ko gën foog naa je pense léegi si loolu est-ce que nit yi nga gis dara ba pare comme ba nga yaakaar ni lii moo war a am après mu changé ko bien xam nga suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. ñun bi ñuy jàng nekk ay xale ñuy jàngal tawxiid dañu doon wax ne yàlla siisul mais du bokk ndab xaw ma dégg nga wax bi am mm, siisul mais du bokk ndab mm-hmm. dafa nekk loo xam ne nguur suñ borom la yàlla yàlla suñ borom amul problème ak kii naan sàngara parce naan sàngara du ko wàññi dara mm-hmm. yàlla amul problème ak kii njaalu amul problème ak keneen yàlla ki mu amal problème mooy ki bëgg a dugg ci nguuram bëgg caa diriger dara te fekk suñu borom moo ko nammee noonu dégg nga bu baax mm-hmm. moo tax mu ne man lu benn jigéen dafa ñëw ne ko ñaanal ma doom mu ne ko yow ñaanal naa la di am doom bu góor di am doom bu góor mm-hmm. te moom gis na ko nit yàlla lu wér la kenn werantewul nitu yàlla mm-hmm. xale bu jigéen bi am ah, ne ko doom ko mu ne ko doom ji mu ne ko doom ji jigéen laa am mu ne ko loolu mënul nekk parce que man bi ma mm-hmm. ma wan doom xale mu nekk góor nga xale bu ne ah, la de daal di koy mul xale kon yàlla daf ma bëgg a fenloo daal mais man li ma gisoon góor la mu ne ko kon est ce que du li nga fàttee wax incha allah la kon léeg-léeg nit ki yàlla mun na la wan dara parce que euh, yonent bi salaa salaam ba ci nit yu baax yi nit mhm. nit dañ leen di wan dara ci lu baax moo xam ci mhm. istixaar la wala ci leneen la mhm. wala ci ilham mais nag ca na koy réaliser foofu la ngay fene wala nga wax dëgg beneen bi ci des mooy ñu bëri ci ñi nga xamante ne dañuy woote ne ay sëriñ lañ bu ñu def seen istixaara dañuy jël ay turu jinne la ñuy utiliser te junne kenn junne jinne ku ne xam ne ne dafa dafa gaaw a fàtte dafa mën a fen mm. léegi mun na la indil benn information parce que boo jàngee alxuraan dañuy wax ne jinne yi bu njëkk dañ daan sàcc ay wax yu di ko indi ko wax nit ñi mhm. léegi nag jinne mën na la indil benn dëgg bokkal la ci fukki fen léegi nag yow boo distingué xam doo mën a xam li muy wax dëgg la wala fen la mooy waral léeg-léeg mën nga def sa istixaara jinne ji wan la lii pour fowee sa xel mooy waral léeg-léeg nit ñi di fen ji lu bari bari moo tax may mhm. wax ne ku bàyyiwul di li di wax mhm. a am suba doo jóg ci gi gi moo tax gis na yépp da ngay dégg li leen yàlla lim leen def ay xaaruuna yépp mais mosoo dégg ñu ne firawna dafa njaalo wala dafa naan sàngara mais bi mu bëggee dugg ci nguur yàlla rek ne ana rabbukumul a'la ak maa alimtu lakum min ilaahin xayri bëgg def boppam yàlla rek mhm. ci la ko suñ borom daal di jëlee daal di koy alak moo tax yàlla ne rëy ak for man suñ borom rek maa ko jagoo képp ku ko xëccoog man mhm. dinaa la weer ba ñëpp dinañ gis sa gàcce ci digg penc mi duñ génn ci affaire coupe Euh, direct doon wax nañ def lii nañ def lii ba génne si ay sarax et tout. waa jërëjëf laaj boobu xam naa ne ñu bari dañ la koy laaj mais man awma ak relation benn benn benn benn jour. donte am na yeneen joueurs yoo xam ne xam naa leen mais ñooñu nekkuñ sax équipe nationale ba ñenn ñi ay xale lañ ñenn ñi sax pareeguñ pour football ci ci ci fii nga xam ne moo équipe nationale mm-hmm. ñooñu maa ngi leen nuyu au passage ñoom ñoom dinañ xam li may wax mm-hmm. mais bu dee joueurs yi la awma ak ñoom benn relation xamante naa seen xarit nag mais awma ñoom benn relation mm-hmm. waa fédération awma ak ñoom benn relation nitu état awma ak ñoom benn relation en tant dama wax ne toujours ne ñun Aliou Cissé ni mu tey capitaine Koulibaly ni mu nekkee citoyen noonu laa ko nekkee li Koulibaly man su ma ko mënoon man damay dem summeeku dem football li Sadio Mané man su ma ko mënoon damay dem takku dem football yi kon nit ñi du ñu yaakaar ne que nit ki dafa am ak relation jour man Sénégal la drapeau Sénégal laa amal su ma mhm. génnee sarax tey su ma xaalis laa def ko ci sama propre argent laa def ko ci dama ko def ak fierté ngir lan ngir ëllëg Sénégal feetu affaire bi tey mi ngi nii am na nekk na jàmm tey bi bi bi nga xamee jël jël nañ final bi man ay nit dañu ma woo sax ma félicité am na ñoo xam ne sax jox ma ko man te ñooñu xaw ma leen tey am na ñoo xam ne maa ngi ciy nuyu ko xam ne koo xam ne mi ngi tudd Aziz la tudd mi ngi nekk extérieur man xaw ma ko yónnee na ma alalam te man xaw ma ko dafa ne ma lii man maa la ko yónnee ma ne ko yow la kan mu ne mm. a waral mais man ak ñoom benn relation mais en tant que Aliou Cissé ni mu bëggee ndamu Sénégal noonu laa ko bëggee te maa ngi ñaan Sénégal dem ba jël coupe du monde encore bi leneen lu ñuy yëngu tutam dama ciy taxaw dama wax ne Sénégal sàngara sax xaraam ne mais adduna bi bu ñu doon xëccoo benn butéelu sàngara lu muy xaram xaram man Sénégal laa ko gën a yéene donte sàngara dafa xaram kon loolu maanaam waxin la rek maanaam lu nit ñi xëccoo yaakaar naa bu dee yow ko baax nga sa réew nga ko war a yéene à part que nga di ko yéene keneen taxawaay boobu rek lañ ci amoon mais taxawaay ñun li ma waxoon ca kii ba ne su ma demoon bay wax benn sarax ne nañ ko génneel pour équipe nationale. Mhm. te aw ma ko man ma noppi dama koy man ma def ko su ma ko mënul sax dinaa ko leb ma jël ko ma def ko mhm. kon loolu taxawaay boobu rek lañ ci amoon mais amuñu benn relation ak waa équipe nationale mais relation bi ñu am mooy suñu drapeau réew lañ ko amal xamante ne lépp lu mu nekk dañ caa war a joxe suñu bakkan bu woote woon guerre tey dañuy joxe suñu bakkan. Mm-hmm. kon kooku bu ndokkee ci leneen tamit da nga cee moom ala kulli xaale. allah leer na lañ est-ce nañ xam euh, l'islam lan la wax ci football. waa l'islam li mu wax ci football loolu sax ma partagé du ma ci waxagun damay bàyyi ba kaan bi jàll. Mhm. nekkuñu ci moment discussion. Mhm. mais bu bu kaan bi jàllee mu ko que ça soit nga nekk oustaz wala nga nekk imam boo paree man la porte est grandement ouverte ubbil naa la pour nga ñëw ñu def ci débat ci football. Mhm. football moom xaraamul. xam-xam yu bari dañ koy wax mais football football xaraamul mais football liin mooy xaraam football bu ci carte duggee mun na xaraam. bu ci def yaramu neen awra génne mun na xaram mais jëmmi football moom def ko. Mhm. xaraamul moog làmb ñoo yam rek làmb bëri xaraamul mais aw bëri win mooy xaraam comme Sénégal tey buñ bi ñuy bëree bu doon bu doon euh, mbër yi dañuy dañuy sollu jot. amul dóorante amul gaañante amul carte xaalis booba làmb dara newu ci parce que yonent bi saa salaam bëri na ci dundam mhm. agro loolu ku ne xam na ko dégg nga parce que bëri dafay may nit ki courage mun na jàngal nit ki parce que boo demee tey armée wala ñuy def taekwondo wala ñuy def yeneen kii dañuy dañuy def euh, wala ñuy def sido mhm. dañuy jàng loolu ngir lan pour mën a aar seen bopp kon xeetu bëree xaraamul football tamit xaraamul loolu moom na leer ci bopp ñëpp mais aw football it mooy xaraam que sax nga xam ne jàng alxuraan xaraamul mais jàngeenu alxuraan mun na xaraam xam nga ki taxaw ci diggu soirée bi di jàng alxuraan. Mhm. jëf boobu dafa xaraam. mais taxul jàng alxuraan xaraam kon jëf ju nekk nañ koy jëfe mooy xaraam mais jëmmi football ci boppam moom xaraamul am na mhm. la bokk ñi koy wax boo demee sax xamuñu sax source boobu fan la jógee ak yooyu kon jëmmi football moom ci gàttal mooy xaraamul nañ koy defee nag mën naa xaraam ci carte dugg ca wala rayante dugg ca wala jaxasoo góor ñi ak jigéen ña dugg ca jëf jooja moo xaraam mais jëmi football moo mënul xaraam ala kulli xaali. macha allah leer na nañ léegi ñu ñëw rek si wàllum góor jigéen. Mm. ku ne gis na léegi ni mel si réew mi la moo si sa jàngat coow li fi am yépp waaw góor jigéen xam nga Sénégal dañuy wax léeg léegi dañuy dañuy wax imaam yi lan mm. mooy sa jàngat fekk diine islaam amu ci jàngat oustaz amu ci jàngat. imaam amu ci jàngat président de la république amu ci jàngat mhm. diine yàlla suñu borom moo ko àtteel boppam mhm. ci téere bu sell bi muy alquran mhm. ku ne gis na xissatu luut la amoon ci jamonoom góor jigéen amoon fa yàlla suñ borom dafa wëlbati dëkk ba suuf sa dafa dafa li ñu tudd jaala aaliyaha saafilaha lu jaral suñu borom ak yërmande ji mu am ni mu réyee lu ko jaral mu ëlbati suuf dëpp ko ci kaw ay nit mu doon seen bàmmeel ñu faatu loolu rey na lool beneen bi ci des mooy yonent bi àtteel ko ba xam ci hadis bu wér ne bu ngeen fekkee ñaari góor jigéen yuy jotee mhm. na ngeen rey ka koy def ak kañ koy def faqtulu al faila wal mafuula ki koy def ak kiñ koy def na ngeen leen rey sew-sew nag am na foofu mhm. ki koy rey léeg-léeg mën nañ koo rey te duñu bu sew am na foofu léeg-léeg du ñaari góor jigéen boo leen fekkoon ñuy sëy wala nga fekk góor jigéen buy sëy geneen góor mhm. mën nañoo rey kenn ki te rey keneen ki ci atte l'islam lay dugg parce que bu fekkee ku ku mag dafa forcé woon benn xale di ko def ku mag ki la ñu rey mais xale bi majeuragul kenn du ko rey kooku duggagul ci atel parce que lam yabluxil xulum duggagul ci âge bu ñu ko war a reyee bu dee góor moo ko def euh, soxnaam mhm. da ko forcé def ko ko am na ñoo xam ne dañ ko def seen soxna da ko def soxnaam te forcé ko ko te tayu ko buñ ko xamee bay rey ku góor ki la ñu rey mais duñu rey ko jigéen kon atte boobu tamit nañ ci teey bu baax léeg-léeg nga gis euh, benn góor téye benn xale si benn ruq di séq ak moom dara ñu ne jàpp na ñaari góor jigéen ci jàkka sàngam wala ci barab sàngam ñu ne nañ leen rey déedéet waruñu tëb tëb rek rey leen ñoom ñaari ñëpp mais bu dee ku mag ki moo ko def ku ndaw ki ku mag ki moom dees ko war a rey mais ku ndaw ki damay wax ne dañ ko war a téye exploité ko yeewaat ko jàngalaat ko diine ba xam liñ ko doon def ban danger moo ci nekk ak lan moo ci nekk mais kenn waru ko rey parce que xale la dañ ko forcé def ko ko dégg def ngir sauver sa bopp mais defoo ko ngir bëgg def lu ñaaw ala kulli si coow loolu amoon si jàkka ja sax am na ñu si mhm. doon wax ni ki si gën a féetee ndaw mhm. àndut woon ak xelam xelam mhm. matul léegi est ce que ñoom ñaar foofu tamit ñooy bokk même àtte bi waaw duñ bokk àtte mooy léegi xam nga même xelam matul même bu dee nit la te xelam matul xam nga islaam mhm. dafay wax ne rufiatil aqlaamu an salaasa mhm. linnaimi wal majnuni wa sabiyi yàlla ne na ñett dañ leen yëkkatil xalima bàkkaar kenn du leen ko bindal mooy kii nelaw ba ba muy yeewu kenn du ko bindal bàkkaar kon même fii ne booy nelaw loo mën a gént ak loo mën a def ci sa xel di ko gént kenn du la bindal bàkkaar ab dof kenn du ko bindal bàkkaar xale fii ak majeur agul kenn du bindal bàkkaar parce que l'islam xam na ne ñàkk a xelam moo tax dégg nga ñàkk ànd ak xelam moo tax ñu mhm. xale amul bu joxoon nit poison mu naan ko wala mu rey nit sax kenn du ko àtteegun léegi dañuy dem ci ay ba yi mhm. macha allah leer na nañ mhm. léegi dañuy dugg si rek si divorce yu bëri yi nga xam ne am na si réew mi lan nga yaakaar ni moo koy indi waaw amina de divorce yi xam naa ne <laughs> yàlla nañ ci yàlla musal nag amiin waaye divorce yi li koy waral lépp mooy doomu aadama yi dañoo àndatul dañoo àndatul ngir yàlla mm-hmm. beneen bi ci des mooy nit ñi dañoo dem ba nit ñi dañoo infidel mm-hmm. te infidel te li ko indi lenn la mooy dana ko indi ñaar mooy ñàkk a doylu ak matérialiste mooy bëgg bëgg yëfu àddina mm-hmm. parce que tey ñaar ñiy sëy ñaar ñiy sëy ku góor ki bi muy bëgg ku jigéen ki am na ñeneen ñu ko bëggoon mu bàyyi leen bu dee ku jigéen ki la bi muy bëgg ku góor ki am na ñeneen ñu fa fekkoon ñu bàyyi kon ñoom ñaar ñëpp bu ñu xooloon ne ñoom bi ñuy sëy am na ñu ne woon ñoom ñaar du ñu seen sëy bi du continuer mm-hmm. dinañ am jom ñu continuer seen sëy boobu ba kenn du leen reetaan mm-hmm. kon loolu la beneen bi ci des mooy ñu bëree bëri ci jigéen ñi dañ jul bàyyi xel wàllu lu ñu tuddee mbaraan mooy tey nekk ci ay góor yu bëree bari nga lekk seen alal ba xëy suba dem dugg ci sëy nga jàpp ne sëy boobu dina neex loolu moom nax sa bopp la bépp jigéen boo xamante ne tôt yaa ngi doon yaa ngi doon nax ay góor di mbaraan di lekk seen xaalis tôt ou tard jàpp ne bu duggee si sëy maa loolu secret la bu ñu bëree bëri xamul mooy ki nga xam ne dafay mbaraan di jël ay alalu jàmbur di ko lekk te tegu ko ci dëgg mhm. kooku bu duggee ci biir néegu sëy faaw mu am ci naqar parce que dafa tas ay yaakaar yu bëree bëri ku tas ay yaakaar nag faaw sa yaakaar dafay dafay tas ne di tas loolu bokk na ci li mooy nit ki da ngay da ngay muñ fekk fekk fenn dara nga téye loola wala nga ñàkk fa fekk nga xaar ko fa mhm. dégg nga baax mooy wërsëg léegi da ngay si naan diw nañ ko may diw mu ne ndax mën na dara ndax mën na dara xam nga niw mën na dara déedéet mais man dara taxul ñuy ànd mais nit yi ngor moo tax ñuy ànd nit sëy naa góor ba mu yàgg góor gi dem ba handicapé wala mu gumba teewul ku góor ki ku jigéen ki day continuer di ko muñal di ànd ak moom ci sutura ak teraanga mais am na ñoo xam ne boo ànd ak ñoom tey mën nañu xëy suba sax gis góor bu la gën a am ñu trompé la bàyyi la cokkaas la bàyyi la surtout bëri ci ñiy tukki dañ la koy wax dañ naan la sama soxna dama ko indi tey bitim réew ñu nekk lu yàgg yàgg vraiment jàppale naa ko ci lu bëree bëri bëri mais dafa dem ba si biir mu jékki-jékki rek xëy suba ne ma dama bëgg nga may ma sama baat dama bëgg a nekk ci sama bopp kon jigéen ñu bëree bëri tey alalu àdduna mooy tax ñuy war ala kulli xaalin d'accord mu mel ni am na si ñoo xam ne sax soo amul alal duñ duñ nangoo dugg si yow daal waaw xam nga alal sax alal sax yàqul sëy ma ne ko alal sax yàqul sëy baax na ci sëy mm-hmm. mais nag euh, doylu mooy lépp dégg nga mm-hmm. doylu mooy lépp alal yàqul sëy mais doylu mooy lépp ndax yonente bi saa sana bi muy wax takk leen soxna dane nga takk ko ngir taaram wala ngir diineem wala ngir alalam mais dane booy takk soxna si wala fi mu bokk hmm. yax bu rëy la bokk wala bokkul ci yaxu rëy mais mu ne booy takk soxna li gën mooy boo bañee réccu na nga takk borom diine parce que borom diine dafa yaatu waxuñ ne kuy jullee buñ ne borom diine ne comme ni nga def la mooy wala muuru que nit mën na muuru fekk amul diine hmm. kon diine joteewul ak muuru dara ku ku ku am diine mooy koo xamante ne yasbir dafay muñ ci jamono bi mu neexee ak jamono bi mu naqaree hmm. bu sa jëkkër feebaree nga muñ bu ñàkkee nga muñ am na koo xam ne tey mi ngi nekk ak jëkkëram mais balaa am bànneex day dem ci beneen góor am na koo xamante ne tey mi ngi nekk ak jëkkëram mais li ko jëkkëram jox ci àllam sax da ko jël jox ko beneen góor kon loolu ñàkk muñ la kon muñu daal moo làmboo lépp daal nga kon diine waxuñ ne rek na kuy muuru wala koo xamante ne dafay dañ ne dafay dafay muur ay cëram wala mu gàtt tànk déedéet diine mooy koo xamante ne da ngay muñal sa borom kër ci lépp nag da nga koy bëgg te yàlla tax bu nu laa toogal nga toog bu ne laa defal nga def bu ne laa bàyyil nga bàyyi lu mu la teg ak lu mu naqar naqari nga jël loolu nga supporté ko moo tax bi loolu dañee nag ñàkk muñ googu bi mu dañee diine dañ ci rek sëy du jóg ci fitna ala kulli xaal d'accord am na mais si côté boobu ñu gis ne rek am na si ñoo xam ne dañ si dañ si exagéré mhm. genre bëgg a jël lépp ne jigéen ji moo ko war a def est-ce que diine dafa wax comme ni ñu lay waxee yaay togg yaay fóot yaay genre yooyu daal waaw loolu sax moom amul ci lislaam lislaam moom forcé wut jigéen ne ko yaa war a togg wala yaa war a dem marché loolu ju góor ñu bari am na ñoo xam ne dañoo yaakaar góor ñi dañoo war di war di raxas dus mhm. dañoo war di defar ay légumes dañoo ah. man dañoo war dem marché man damay dem marché. Mm. damay dem marché. damay ah, dem marché damay defar café damay defar kër gi. damay raxas mm-hmm. ah, dus a après nga nekk borom kër gi di loolu jotewul nga nekk borom kër gi dara di. Mm-hmm. yonent bi dafa bi mu demee al isra wal ba ñëw bi mu demee ci yàlla ba ñëw. bi mu xëyee mm-hmm. mbaam la war jaar ci biir marché teewul mu nekk Muhammad di loolu yàqu ci dara loolu yëpp rëy la rek amul benn problème voilà man damay damay kii damay mu yow yaa ngi koy gis sax macha allah am na solo <laughs> jërëjëf waaw. <laughs> ñu daal di ñëw rek si màggal poroxaan bi ñu bi ñu mm-hmm. si. Mm-hmm. yan jàngal rek nga ñu mën a jox si soxna jaara ak euh, lan rek nga si conseiller jullit yi. waaw màggal poroxaan gi daanaka mën naa yóbbaale sa question bi nga laajoon sànq mooy soxna jaara moom xam nga. Mm-hmm. exemple la ci. jigéen ñëpp mm-hmm. mais nag jigéen boo ko amee boo amee doom nga tuddee ko tour bu baax dana ci am solo lool ndax mm-hmm. soxna jaare ki ñu ko tuddee mooy soxna mariama mm-hmm. xam nga ne maa ngi koy wax barki démb ci Orange FM ne soxna su papaam da ko fekkoon ci biir benn benn benn place muy jaamu yàlla bi nga ko fekkee muy jaamu yàlla daf ko laaj na ko daf ko fekk mu ñu tegal ko ay fruits yu bari ay pomme orange raisin ak lépp mu koy lekk te fruits yi ñu ko indiloon foofu warul war a ñor ci saison boobu bi ko papaam laajee ne ko Mariama annaa laki haza lii fan la la xéewal yi fan la jógee mu ne ko min indillah kon sellal gum nekkoon di sellal ak jaamu yàlla gum nekkoon di jaamu yàlla moo tax suñu borom defaloon ko xéewal yu rëy yooyu. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy sàmm cëram gi mu sàmmoon ay cëram may ko doom ji amul papa dégg nga ba. Mm-hmm. wa Mariama ibnata Imrana allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina mu ne Mariama day am gi mu am doom te amul baay bu mu leen yéem. Mm-hmm. dafa sàmmoon ay cëram doon muur ay cëram. doon jaamu yàlla di sellal gàtt ab tànk bëri lu muy tudd yàlla moo taxoon man yàlla ma ëf ko benn ruux boo xamante nii góor ñi ko mën a jur bëriwul ndax leer boobu noonu ci moom laa ko am ndax magasin la jigéen dafa nekk boo ne magasin bu rëy la ci yàlla mm-hmm. moo tax bu ñu ko tëjee ak caabi yu baax rek suñu borom dana ci def dund bu riche boo xamante ni ñëpp danañ ci mën a jariñ moo tax Mariama am doom ji amul papa ndax dama ne mm-hmm. wax ne doom ji li tax mu ñàkk am papa mooy mm-hmm. est-ce que jamono jooju Mariama doon am doom am na ku matoon Eesa baay ci jamono jooju est-ce que amoon na fa moo tax suñ borom ne kii kat góor ñi ma fi gis nii ay fàqamaan lañ mën nañ koo jur dégg nga moo tax mu mhm. jëlal ko boppam mu roof ko Mariama mu am mhm. ci doom kon seelal gum seetloon moo tax yàlla ne magasin bi ni mu riche du ma ci jenc loo xamante ni fa tabarkala lu yàq lay doon soxna jaar tam yoon boobu la jaaroon ci muñ gis nga ñu lay wax ne la jël na gaalam mu xar ko ngir toggal borom këram kafe mhm. tey am na jigéen ñoo xam ne seen borom kër mën naa am problème mu saako ceeb mais li ñuy am na ñu ngi koy xaaree bu ma amee xew wala bu sama doom ji di sëy lañ koy xaaree kon jigéen ñi léegi xar baas lañ gën a mën ci xar duñu xalaatuñoo xar xanaa ku lay ku lu dul defaral kafe nee naa ñoom sa léegi ay café café noir lañuy defar ku lu dul seggal café Touba kooku du kooku du la xaral gaal ñoo xam ne ñi ngi jënc ay takkaay seen biir kër mm-hmm. takkaay yoo xamante ne valeur bu seer la seen borom kër mi ngi souffrir di xëy di sonn di wàcc xamul lu muy daj mm-hmm. te bu ñu ko ñaanoon 1000 francs mu bañ ñu ne moom day du ma jox dara ci àll bi lay joxe tey peut-être yow sa takkaay yooyu boo ko joxoon sa borom kër jaayante ko moom tey waxuma la moom mu réussir mais day feeñ ci say doom ëllëg ma mm-hmm. tax soxna jaara bi ko Maamoor Anta Sali santee ne ko kaay nga téye bi ci taw bu metti boobu dafa téye sàkket bi Maamoor dem ci biir néeg bi far ngëmbentu dab ko foofu mu tëdd nelaw bi mu yeewoo mu fekkaat ko fi mu ko téye woon taw bi yëpp wàcc ci kawam te xam ne soxna jaar nit ku tuuti la woon mhm. ko ne ko Mariama looy def yi mu ne ko yow da nga ma waxoon jàppal la sëñ bi téye ci ay di jooy jooy métti ne ko jàppal ne ndox yi la fi laal mhm. bu dina topp nga am doom joo xamante dinañ ko topp dinañ ko bëgg moo tax loolu <laughs> bu doon ne waxuma la dara maa taxawal ci ski bi dina téye sàkket <laughs> du ci yem ci foofu sax dalay bii ñu ragaju la dolli leneen waaw ah, kay doy xam naa du def loolu mais loolu rek jàngat boobu ne que moom noonu lay def ah ka muñ dafa baax mm-hmm. soxna jaara jël na ay takkaayam jamono boobu takkaay seeroon na mm-hmm. benn pël bu doon jaay soow mu jox ko pël bi ne ko ma xaalis mais lii samay takkaay la mm-hmm. téyee ko heure boo xëyee ñëw nga jaay ma sow pour ma defaral sama sama borom kër bi ma defaral ko jus bu baax defaral ko ndékki bu baax kon jàngat la ci soxna jaara jigéen ñëpp war a doy ci ñoom parce que doom doom yi doon doom yu baax yi nit ñi doon am ni ko sëñ Abdoulaye waxee woon ne garab garab gi gaa yu baax yi doon daggee fruits yi mhm. ba léegi mu ngi fi mais nit ñi ñoo amatul effort dem dagg fa ay fruits yi dégg nga mhm. baax kon doom yi nit ñi doon am muy ay doom wàll yi doom yu baax ba léegi nit ñi mën nañ ko am mhm. mais nit ñi ñoo defatul effort dégg nga baax kon loolu loolu rek lañ ci mën a jàngate ci soxna Jaara euh, ñu lay wax rek nga may ñu dara loo xamante ne askan wi yëpp dinañ si mën a jëfandikoo waaw xam naa ne li ma lay may avant euh, dañuy euh, am tuuti métit ñi ngi woon ci naqar mais Sénégal yi damay wax ne Euh, feete nañ final bi jeex na. Mhm. mais am nañ suñu ay doom yu nga xamante ne dañ leen a téye ci dañ leen a fenn daal. Mhm. ñoo xam ne ay ñoo xam ne ay soldaar lañ. te waa équipe nationale li ñu demoon xeexi ko muy ndam. Mhm. ñoom tamit loolu rek lañu ñu demoon xeexi ko muy muy jàmm réew mi. te damay wax ne ñi nga xam ne ñooy takk der yi. ak médecin yi bu ñu xamoon cër bi leen yàlla jox. mën nañu bañ a julli sax ci waxtu te bu ñu dee dinañ dem aljana. parce que dañu nekk ci soxlaay nit ñi. day yollu yonent bi salaa salaam wax na ci lu rëy rëy kon ku ci dee sahid lañ lay jàppee mm-hmm. dégg kon ñooñu noonu nit ñi war nañ leen a gestu bu baax soutenir lañ bu dee dañu am ay famille bu leen nit ñi mënee dajaleel alal ci xaalis ñu def ko parce que mboolem ñi ñu koy dajaleel ñooñu amul ku leen ci gën a doon farata mm-hmm. kon soldaar yi ñu téye nañ leen ñaanal mais njiitu réew mi tamit na ci gaaw àddu na ci gaaw àddu mu wax ci te lu indi jàmm tey loolu na ci Sénégal bàyyi xel bu baax ku mën def nga sàkk sarax ñu def ñaan parce que côté boobu di Ziguinchor mhm. mën na dem ba ëllëg tey benn fitna jóge fa boo xamante ne mën na daw ba law ba yaatu ci Sénégal yëpp mhm. te ñi koy def du dara ñu dul ay nit ñu xonq ñoo xamante ne euh, ñoo nekk ci ginnaaw pour bëgg indi fitna suñu réew parce que Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne àdduna bi yëpp dañ ko teg bët actuellement mbar lan mhm. am na ay sources yu fi nekk ci jukko yu baax ci alal suuf si li fi nekk ci ay loo xam ne réew mi mën nañ ko jëfandikoo pour développer suñu réew dafa bëri ñooñu nag bala ñu ko mën a exploiter faawu ñu delluwaat jàngewaat xam-xam waaye faaw ñu delluwaat xëcc ci jàmm ci suñu ñun parce que benn borom xam-xam dafay wax ne bépp am-am boo xamante ne sàmmee wuñ ko ak xam-xam. Mhm. yàgg-yàgg ci ñàkk ko rek lay jëm. kullu izzin lam yu akkad ila ilmin kon loolu mooy kii bi li ñuy joxe yow yaay laaj rek loo bëgg incha allah boobaa ñu daal koy def ni ko bëggee yow sama doom nga. non dañ dañuy may rek comme ni nga koy defee si tiktok yi rek loo xamante ne askan wi yëpp dinañ si mën a jëfandikoo. waaw waaw waaw ah non yow choisir loo bëgg waxal waxal ban côté nga ko bëggee rek loolu amul benn problème. ah xale yu jigéen yi bëri nañ fi. bëgg ah. am borom kër te amuñu ko si. waaw ah, xale yu jigéen yi nag côté boobu moom damay wax ah. ne. loolu moom du problème mu ñaan problème mu ñàkk a génn Dakar la. Mm. <laughs> xam nga xale yi bëgg ñoo génn jam ñaajo te jigéen ñëpp nag mënuñoo sëy Dakar. yow fi toll nii yaa ngi nii bu góor ñëwoon pour tàgg la xam naa bu ne laa dama lay yóbbu fële. non man kay am problème xadi kay mooy bañ. xadi bëggul génn Dakar. koo xam ne la oustaz ñaanal ma ko nekk <laughs> Dakar kon problème bi problème bi problème mu jëkkër jafe na mais problème mu tànn ay jëkkër yu nekk biir Dakar la mhm. koo ciy takk sax danaa la man biir biir Dakar laa bëgg a toog sama liggéey nangam naam te àdduna foo nekk rek mun nga faa mun nga faa nekk mhm. dégg nga ko defee ku bëgg borom kër ah mhm. yaakaar jooju rabbi li ma anzalta ilayya min xayrin faqir yonent yàlla Moussa bi mu bi mu toogee ba toll nekk waxambaane war a am soxna aaya boobu la waxoon suñ borom rabbi lima anzalta ilayya min xayrin faqir boo ko jigéen bu ko dee saxoo <laughs> suñu borom subhanahu wa taala dalay may borom kër beneen bi ci des mooy am na aaya bu nga xamante ne rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wa jaalna lil muttaqina imaman aaya boobu képp ku koy jàng waxtu njël di ko jàng 99 fois di ci ñaan borom kër aaya bi xadi nee na nga benn bennal ko rabbana euh, après mu jël ko rabbana hablana mhm. min azwajina mhm. wa zurriyatina mhm. qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman aaya ji li muy tekki gis nga li muy rabbana hablana min azwajina yàlla nag ñu may borom kër yi ñu bëgg borom kër yoo xam ne bu ñu leen xoolee dañuy kontaan ba suñu suñu rangooñ yi dafay bëgg tuuru ngir cofeel gu ñu am ci ñoom yàlla ñu ko yàlla may kon foofu lay ñaan waaye nag ci biir aaya bi dafa làmbaale tamit njaboot njaboot kon aaya boobu képp ko koy saxoo 99 fois ci waxtu fajar waxtu mhm. boobu nga xamante ne suñu borom day wàcc ba ci asamaan yu mujj yi suñu borom mhm. subhaanahu wa taala mën na laa may borom kër ci lu borom kër ci lu gaaw am na ah, solo mag ñi daanañ bind tam wala wala tamuddanna mhm. aaya boobu ba mu jeex daanañ ko bind suñ ko bindee dañ koy ëwee morceau percal boole ci sagaru sën après yow nga takk ko boo ko takkee dañuy wax ne balaa perkaal bee tilim bay ñuul suñu borom subhanahu wa mën na laa may borom kër mhm. beneen bi mooy euh, wal fajri wal fajri wala yaalil asri wa safi wal watri aaya ba saar bi jeex mag ñi daanañ ko bindi juróom yoon def ko ci fuddan mhm. nii nga mooñee ko fuddan bi jigéen gi fuddanoo ko dañuy wax ne balaa fuddan bee dañ suñu borom subhanahu wa taala wal fajri saar bi yëpp wal fajri saar bi yëpp cette mhm. fois loolu baax na lool ci ku baax na lool ci ku bëgg borom kër ala kulli xaalis macha allah am solo loolu moom mën naa la ko baax bu dee ñi bëgg doom nag euh, mi ngi ci rabbi la tazarni fardan wa anta xayrul waarisina aaya boobu képp ku koy def booy la sa mhm. naafila yi boo sujootee nga di ko jàng 40 fois parce que li mu 40 dafa ñëw ci alxuraan lu bari boo demee mhm. ci fi ëmb di formé woo sax ba di ëmb di matee nit suñ borom danaan bu matee ñeent fukki fan ma def ko muy lumb bu ne matee ñeent fukki fan ma def ko mu am suux bu matee mhm. ñeent fukki fan ma kon 40 lim bu am solo la ci alquran rabbi laa tazarni fardan wa anta xayrul waarisiin képp ku koy wax ci mhm. waxtu sujjóot suñu borom subhaanahu wa taala dana la dana la may njaboot ci kàttanu suñu borom boo bu dee mun nga ñu ñëwal rek loo xamante ne góor ñi ñoom it dinañ si mun jariñu waaw xam nga bépp ñaan boo xamante ne jigéen mën na ko utiliser pour wàllu borom kër mhm. góor mën na ko utiliser pour wàllu soxna mais dafa am góor ñu nga xamante ne léeg-léeg dañuy wala sax du ñu mën a war a du ñu mën a yor soxna fu ñu ngoro ngoro bi day tas wala du ñu mën a yor soxna bu dee góor boo xam ne fu mu ngoro day tas wala du mën a yor soxna wala soxna dafa dëgër ci moom yàlla ubbi rek ko xéewal kooku day bind wa samaai wa taariqi wa ma adraka ma taariq an najmu saaxibu in kullu nafsin la ma alayha xaafid ba aay ba saar bi jeex mm-hmm. ñu bind ko neuf fois neuf fois yooyu daf koy boole ak neuf xobi poftan bu ko booleeg neuf xob bi poftan bàyyi ko ci ba mu fanaan ci mm-hmm. loolu mu sangoo ko neuf jours bépp góor bu ko xam ne bu ngoroo day yàqu wala buy takkee soxna du mën a toog mm-hmm. bu ko defee yàlla suñu borom dana teggi loolu incha allah ala kulli haal macha allah Lamine comme dégg ak ñoom ñoom ñëpp mun nañ koo jëlaale macha allah ko jël yàlla yàlla baat macha allah am na solo léegi Oustaz dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo internet yi waa tàggatoo bi moom lenn kese la. Mhm. mooy ñaanal réew mi jàmm. Mhm. ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñi nga ko waxee waa TikTok ak waa Facebook ak waa ñëpp <laughs> ñoom dañ maa lakkal dañ may sonal rek di ma tooñ di ma kaañu. macha allah li ngay def am solo rek. fa tabaarakallaa ñun damay wax ne ñun duñu ay duñu ay oustaz duñu ay imam. Mhm. mais euh, ñun seen ay frère lañ. xëcc ñu benn cër xëcc ñu benn benn benn yëkkati ko daal. kon doomu aadama. nañu waaj nitu diine yi tamit nañu wàccee seen bopp ba tolloo ak nit ñi. Mm-hmm. parce Sénégal li yàq lu bëree bëri nitu diine ñoo ko yàq parce dañuy foog ni nitu diine tey warul mën a sax warul mën a génn sax dem defi leneen mais dañ dañ lay tënk ba ëpp. te doomu aadama yi pour nga jariñ leen faaw nga wàcc ba mel ni yonent bi meloon mooy jaxasoog doomu aadama yi di fréquenté ñoom mhm. di naanandoo ñoom ataaya di kaf ak ñoom di reetaandoo ak ñoom loolu dafay tax ñu ñeme la boo solee sa koppati rek toog ci kaw di xaddamiku ak di wax ndànk tey fii ku fi toog di xaddamiku di wax ndànk nii tamit boo wéeteeg sa soxna yi da wax ci kaw kon mën ngaa wax ci biti ci kaw rek nit ñi dégg la alaa kulli haal toog ah, man loolu boo ko defee man boo ñëwee gis nga sama kër boo ñëwee bëgg a toog ci suuf maanaam la boo dee da ngay toog ci suuf ñu ànd toog ci suuf wala ñu naan ñu ànd toog ci kaw macha allah am na solo kon alhamdulilah ñu ngi woon ak euh, oustaz Seydina Nouhin ñu amal fi waxtaan bu am solo macha allah di ko remercier si disponibilité am di remercier équipe technique bi Lamine si si caméra bi Kiné Omar ak Khady Seck leen jox dig daje beneen yoon incha allah